ci ndigalu Chérif Alaaji euh, Baba xam ngeen ni euh, euh, monsieur le ministre Doudou Ka daanaka mbokkom yëpp teewu nañ kon su ko defee ñun ñëpp ñu déglu ñu jël kàddu gu jox ko xam ni mooy Chérif Ismaïla Ka moo di rakk bàyyi Tahirou Ka teewal fi waa suur yëpp ak i bokkam bismillah jigéenu dogu yi nga xamante ma saa leen jiite macha allah ñoom ñoo disiwal benn conférence religieuse première édition vraiment ñu mag parale ko monsieur le ministre Doudou Ka waaw première édition la ñu ngi ñaan yàlla yàlla ñu amaat yeneen édition yu bare bare macha allah jigéen ñëpp wuy si nañ ma kilifa yi wuy si nañ ma monsieur le ministre macha allah moom tam ñëw na fi jox nañ ay teraanga may nañu ay biomarque jox na enveloppe macha allah marraine bi aussi kasaalika muy docteur euh, euh, docteur euh, Fatou moom itam macha allah muy marraine bi tam ay teraanga am enveloppe koy gërëm di ko sant bu baax a baax di ko wax ni ko waa si nekk kontaan nañu jigéen ñi dong yëpp kontaan nañu macha allah di ko ñaanal yàlla bu ñu ko def wér man gan ñu yokk waaw mouvement boobu mouvement politique la di jàppale monsieur le maire à Dakar, à Ziguinchor et un peu partout. Ça s'appelle Mouvement Togo pour le Grand Sénégal. ma allah am na collègue am ministre yi ñëw fii macha allah tam ci bés bi may kontaan lool ak DG PNA bu pharmacie si jigéen ñëpp xam ne wuy si nañ ma pharmacien yu bëri ak samay xarit macha allah di ñaan yàlla rek macha allah a ah, mouvement bi gën a law parce que gis nañ ne nekk na ci région yëpp ñu ñaan yàlla mu gën a law yàlla jàppale ko ba nga xam ne fépp mu bëgg a yegg monsieur le ministre Bassirou Ka yàlla yeggal ko foofu macha allah waaw si ndimbala jigéen ñëpp ñëpp taxaw na sama ginnaaw macha allah may kontaan ci ñëpp ay xaritam taxaw nañu waa sama collaborateurs yoo xale yi taaral bés bi yëpp ak samay rakk des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires ay action gouvernementale, religieuse, sociale euh, du président de la République Macky Sall à travers son ministre des transports aériens euh, le social l'homme social qu'on peut le nommer monsieur le ministre Doudouka, euh, qui ci d'appeler le président instruit waaye nous ko def des muy ay jigéen yu spécial ndax ay ma de développement des grandes dames des des des cadres de l'administration et de la de la santé aussi docteur Amika Andeti ci ak ay ay ay naataangoo jigéenam ñoom ñu ay cadre mais muy ay plan d'action pour appeler le gouvernement appeler le président de la République à travers le ministre du conférence bi tay euh, loolu la mais euh, GIE bi tour bi rek xamni lu état wara a la euh, lu lu aussi war nga e c'est des femmes de développement donc femmes de développement développement nak buñ ko dans un pays qui se nomme le Sénégal ñu fi dara action action sociale à travers ces femmes de développement. Donc c'est ce que le ministre des Transports et des Aériens, des Transports aériens a compris. Euh, à travers de leur conférence mu avec une enveloppe de 2 millions avec deux billets de pèlerinage et lui m'a encourager pour pour leur encourager vraiment c'est une action yi nga xam ne euh, le mi parce que réew mi fu mu ci ay euh, euh, jalons yi nga le gouvernement l'a posé à travers le président de la République que tout le monde remercie nous, le gouvernement bi yëpp a def ci dimbalante jàppalante e bu la kenn nax loolu la yonent bi jàngale xayrun naasi anfaahum linnaasi ku gën ci nit ñi mooy ku ëpp njëriñ ci nit ñi aw suñu suñu dénkaane mooy ñu bu ñu bàyyi lii parce que lii mooy cëslaayu réew mi Sénégal luñ ko xamee mooy mbaax mooy à travers ces conférences religieuses li eh, eh, gox goxaan yep koy def ci bir rewmi donc li ndenkané bi moy bu len ci jog mukk ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay croyants lañu dekk croyance lañu nek soit musulman soit catholique té musulman yu fi nek yep dafa am nuñu duggé ci diine l'islam muy avec la voie du soufisme lañ ko jëlé mo xam da ngay bok ci tariqa Serigne Touba mouridisme wala nga bok ci tijaniya wala qadiriyya mo xam tariqa bo meuna jël rek soufisme la tudd soufisme boobu nag euh, lu mu indi Sénégal mooy paix ak stabilité stabilité boobu yii mooy cëslaay bi waaw bu ñu naree tëb nag tey ne dañuy dindi loolu ci réew mi dama ne day métti mais ay million bu dee 17 millions lañu di de sénégalais 16 millions 900 millions yëpp dinañ leen rey parce que loolu ñooñu yëpp ci lii mooy seen cëslaay Sénégal bu dee 17 millions lañu. 16 millions yep ci tariqa lañu kon lii mooy suñu kon digal ngeen ci bu parce que lii la diine santaane lii mooy mbaaxu yonent bi lii mooy mag ñi loolu digal ko kon jigéen ñi tey lu ngeen ndamu lislaam la waaye ndamu réew mi nous la te ñuy aussi jeunesse bi ñu topp leen parce que lii mooy suñu